asalaamu warahmatullahi taala wabarakatuh di ñaan nuyoo bi li mu lamb ci yiw lamb ko ci barke lamb ko ci ngëneel yal na yàlla laaf ko jotaay bi muy mucc ci ñoom di barke ci ñoom di ci waaye di dootu waaye di xéwal gu dootul dog ci ñoom ak fu ab jullit nekk di leen dalal jàmm di leen dalal jàmm fii ci seen kër maam fii ci seen kër maam fii ci seen kër baay fii ci seen kër baay fii ci xarit fii ci seen kër xarit ci seen kër soppe fii ci seen kër soppe fii ci seen kër wéttal fii ci seen kër wéttal nga xam ne lu fii seen yitte nga xam ni lu fii seen yitte du lenn lu dul toolub lislaam du lenn lu dul toolub lislaam bu ngeen fi am bu ngeen fi am ak njaboot di leen ko bayal ak njaboot di leen ko bayal ñun ñuy seeni jëwrin ñun ñuy seeni jëwrin nu nit la nu am tuuba nu nit la nu am tuuba du lenn du lenn lu dul waar woo xam ne lu dul waar woo xam ne ci toolu islaam boobu ci toolu islaam boobu dañ fa am njaboot dañ fa am njaboot ñu koy bay ñu koy bay ngeen di seeni jëwrin ngeen di seeni jëwrin muy benn tool. muy benn tool. di génn kër. di génn kër. am benn buntu rek. am benn buntu rek. muy buntu jàmm. muy buntu. jàmm jàmm. ñu koy duggandoo. ñu koy duggandoo. di ko génnandoo. di ko génnandoo. seexu canaba muy maam cheikh canaba. ñun ñëpp jox nañ ko suñ kurus. ñun ñëpp jox nañ suñ kurus jox ci sahir ci sahir jox ko suñu xol. jox ko xol. ci batin ci batin ngir jëm yalla ngir jëm yalla ak yenen ci ak yeneen Muhammad sallallahu alayhi Wasallam, Serigne eh, Ahmed Saloum jëm na Serigne Ahmed Saloum jëm di nasruddin di Nasru jërëjëf jërëjëf. sëñ Mouhamad Bachir sëñ Mouhamad Bachir xam na li nga doon ci Thiénaba na li nga doon ci Thiénaba waxuma sëñ Thiénaba mu fi ne waxuma sëñ Thiénaba mu fi ne waaye kuñ jaboote rek waaye kuñu jaboote rek xam na la xam gu wér na la xam gu wér ngir kër gi ngir ni kër gi sa kër la sa kër la guddi guddi bëccëg ak bëccëg doo fi jóg doo fi jóg ne nu ngi yóbbante nuyoo ca xalifa ba mébatam yëpp mébatam yëpp ci kër sëñ Touba ci kër sëñ Touba yëg nañu nee yëg nañu ko. am na jikko joo xam ne. am na jikko joo xam ne. xalifa yëpp. xalifa yëpp. dañ ko war a roy ci moom. dañ ko war a roy ci moom. mooy lépp lu la dikkal ci teraanga. mooy lépp lu la dikkal ci teraanga. nga delloo ko ci Serigne Touba. nee loolu xalifa yëpp ko war a roy. ñun yëg nañu loolu. ñun de yëg nañu loolu. kii mooy wax mooy Serigne Assane Seck bu Canaba Gossas. kii muy waxal ne la kii la. cooti gee la nekkoon bàyyi fi lépp. dem di bay yor daara ba xilaafa gi fekk mu ñëw fii pour confirmer li muy wax. nee na kii. ci àll la jóge ci àll la jóge ci manding ci manding di wétli ko ay njaay àll doon wétli ko ay njaay àll jubal ci sees bii jubal ci sees bii xamul benn buur ne xamul benn buur xamul benn mu xaddam xamul benn mu xaddam xamul benn ministre xamul benn ministre xamul benn député xamul benn député xanaa bu ko xamee xanaa su ko xamee bi mu toogee pouvoir bi mu toogee démb ak tey ci pouvoir bi waaye musul sol dàllam waaye musul sol dàllam jëm fenn jëm fenn jaamu yàlla jaamu yàlla bay dunde yàlla dogal na yàlla dogal na. ndeyam ndeyam. sunu sëriñ sunu sëriñ. ndeyam mu nga jóge wuram ma. waaye ndeyam mu ma hadiyu. sans bàyyi. moo ko fi indi. waaye jikkoy góor waaye jikkoy maam seen canaba góor gu mag. jikkoy sidna limaamul mahdi jikkoy maam imaamul mahdiyu. jikkoy tedd ngay mag ñi. jikkoy tedd ngay mag ñi. lépp lépp. yemb na ci sëñ Abdourahim Seck. noo ngi nuyu sëriñ bi. noo ngi nuyu sëriñ waaye nu lay ndokkeel. barakaatuhu. ne bokki jullit yu teew yu tedd yi fi teew yëpp nee na mi ngi yëkkati ay kàddoom ci ndigalu Sëriñ Tuuba Cheikh mu Cheikh Mouhamadul Bachir di mu yàgg fi lool te ne mu yóddi yónni ko kadduy siyaare ak kadduy njaale ci lii ñu bokk muy kaddu yu tedd yu bàyyikoo ci moom jëwum ci yow Seex Abdourahim yow mi nga xam ne tey yow la yàlla teg tey ci boppu njabootu maam Sëriñ ba neena na muy ñaan jotaay bi yag lool ta and ak jamm ne serigne bi mi ngi lay nuyu dila ziyara ak yow ak sa njabot gi yépp ta xamne li doon yéeneem moy mu ñewal boppam waye fi jamono tollu nga xamne ndaje yep dañ ko téré da kon kenn doyu ko ci jëmi boppam rek sax moo ko ci doyoon mooy moo waroon a amoon yéene ñool boppam ndax xam gu mu xam diggante maam kër sëriñ ba ak Touba kër sëriñ tubaa li ñu seq démb ak barki démb te lépp ji rafet na ko jekk moom itam mu seedeel njaboot gi nga xam ne bokk na ci kër gi yitte ji nga xam ne am nañ ko ci moom mooy waxtu wu nekk ñu di ko nemmeeku di ko siyaare si lépp loo xam ne lu mu xewle rek bokk nañ ko ak moom moo xam boo ko mënoon mooy ñëwal boppam waaye insha allah fas na ko yéene mottali waxtu wu ko comme waxtu yu mayee rek dana jóg ñëwal boppam moo tax mu yebal ko moo ànd ak délégation bu mag bii ma tudd léegi boo xam ne mënoon naa gën a yaatu sax waaye sàmmonte ak li jamono laaj rek tax mu doxale ko nii ndax kenn ku ne xam ne fi jamono toll laajut ay daje laajut ay daje ndax euh, lépp luy sàmm wér gu ndax lépp luy sàmm kaaraange ak wér-gu-yaramu nit ñi rek dafa war ci kilifa yi ñu di ko sàmm di ko ànd ak ñi nga xam ne ci wàllu àdduna ñoom la yàlla dénk loolu muy waa kër docteur ak wàllu nguur gi nga xam ne nag ñoo nekk seen kanam bi muy ñëw nag ne mi ngi ànd ak sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ak ñi nga xam ne ñoom laa lim lépp léegi ci ay bokk comme nag waxtu wi dafa guddi kumis di bëgg a dugg moo tax li mu amoon yéene wax ko lépp sax dañ koy leb rek ba beneen yoon ba ñu dellu siwaat insha allah jërëjëf Cheikh Abdou jërëjëf kon bàyyi Cheikh Abdou loolu mooy doon